كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulil mabuusi rahmatan lil alamin bashiran wa nadiran wa daaciyan ilallahi bi idnihi wa siraajan muniran innama buistu li utammima makaarima al axlaaqi wa fi riwaayatin innama buistu mualliman wa radiyallahu an ashaabihi wa xulafaihi rachidina wa taabiina lahum wa taabii taabiihim wa am masaayixina bi ixsaanin ila yowmi ginnaaw ba ñu sante yàlla di julli di sëlmal ci suñu sang sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy sant suñu ñaari waajur di nuyu kilifa diine yi di ñaan yàlla ñu am tawat tëdd ci lalu opitaal yàlla fëgg seen bopp ak ñu caabi féetee ginnaaw waaye ñuy nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di nuyu mbokk yeeg xarit yi ci seen émission topp sa diine ngeen ànd ak seen mbokk seen xarit Seyda Fatima Zahra Ba macha allahu taala bi passé ñu ngi doon waxtaan ci al isra wal miraaj ci rañaan bi nga xam ne yàlla rañaanal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ñu am fu ñu yemoon ñu am fu ñu tegoon suñu baaraam incha allah moom lañu bëgg a eggali tey ci kàttanu yàlla ndax mbokk yi kenn weerantewut ni bii paase ñu ngi yemoon ci buraax bam na yonent bi du war ci kawam jibril alayhi salaatu wasalaam di ko wax kii di ko wax kii mooy ki nga xam ni moom la yàlla tànn moom mooy borom dexu kawsara bi ku topp ndeyjooram dem àjjana waaye ku topp càmmoñam dem safara ki nga xam ne li mu indi ku ko dëggal yàlla mu ne ma bëgg la sopp la ba pare jéggal la say bàkkaar macha allah kon buraax daal di ne kon yaa seede yépp ci sa waa ji te muy dëgg kon dama ñaanal ëllëg ma bokk ci ñemee ramb keroog yow mar xiyaam yonent bi ñaanal buraax ndax buraax tamit ko am fulla la macha allah yonent bi ñaanal buraax buraax nag kon ëllëg bokk na ci ñu yonent bi di wàllu keroog yow mar xiyaam yonent bi daal di war ci kaw buraax waaye ba mu rawee ba mu waree ci kaw buraax ñuy dem ba ci yàgg yonent bi nee na ci lu sob yàlla jibril daal di ne ma wàccal nga julli fii ñaari ràkka mu ne wàcc julli fa ñaari ràkk ma ne jibril lan moo tax nga ne ma wàccal ma julli fii ñaari ràkk fii mooy fan mu ne ko fii mooy xaqiiq yi bi ñuy wax xaqiiq yonent bi mu ne maag jibril ñu daw ci lu neex yàlla tuuti rek am benn waay bu may woo sama loxo càmmoñ na ma yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawal ma yedd la waaye ma yeddaale say xeet sallallahu alayhi wa sallam mu ne faalew ma ko waaye du sama mbaax mbaaxu yàlla suñu borom la nee na ma dawaat tuuti dégg ku may woo sama loxo ndeyjoor na ma yow Muhammad taxawal man ma yedd la waaye ma yeddaale say xeet sallallahu alayhi wa sallam mu ne faalew ma ko waaye ñàkk faale googu du sama mbaax de mbaaxu yàlla suñu borom la yonent bi mu ne ma daw ba ci yàgg maag Jibril ma gis benn jigéen bu taaru benn jigéen ju rafet macha allah karaw gaa ngi gudd mu ngi mel nu ko neex mu ne ma yow Muhammad taxawal ma yedd la ma yeddaale say xeet yonent bi mu ne faalew ma ko man yonent bi mu ne waaye du sama mbaax mbaaxu yàlla suñu borom la mu ne maag jibril ñuy dem ba egg fi nga xam ne foofu may fan foofu may baytul muqaddas waaye baytul muqaddas diggante màkka ak fi nga xamante ne foofu may Palestine boo ko doon dox mat na 1200 kilomètres seen diggante lool la mat moo tax buraax rek moom moo ko fa mën a yóbbu ndax mit nit mënu koo daw ci benn guddi mënul nekk mbokk jullit ñi 1200 kilomètres mënul nekk kon mbaaxu yàlla rek moo waral loolu ci même guddi moo tax yonent mu ne ba ma eggee baytil muqaddas benn xale dal di ñëw daw rek songu man man sallallahu alayhi wasalam mu ne mu daal di may songu fóon ma kottu ma macha allah ma daal di toog nag di laaj jibril benn par benn lan la doon laaj jibril benn par benn mu ne ko jibril ki nga xam ne moom moo ma doon woo sama loxo càmmoñ naan ma taxawul ma yedd la yeddaale say xeet kooku mooy kan jibril alayhi salaatu wasalaam ne ko kooku chrétien la woon mu ne ko gis nga boo ko wuyu woon sa xeet ñëpp chrétien lañuy nekk waaye li nga ko ñàkk wuyu du sa mbaax mbaaxu yàlla la mu ne ko ki ma doon woo sama loxo ndeyjoor kooku kan la sallallahu alayhi wa sallam ne ko mu laaj ko jibril jibril ne ko kooku siif la mu ne ko boo ko wuyu woon saxeet xeet yépp ay juif la ñuy doon waaye heureusement ba wuyuwu ko waaye du mbaaxam mbaaxu borom bi la mu ne ko jigéen ju rafet jooju doon ma doon woo jigéen ju taaru jooju nga xam ne lépp looy méngale ci taar rek nekk na ci ndaw soosu kooku mooy kan mu ne ko kooku mooy adduniyaa ko mooy àdduna allahu akbar jibril na yonent bi gis nga ndaw soosu soo ko wuyu woon sa xeet ñépp àdduna rek la ñuy gëm ba fàtte àllaaxira mbokk jullit ñi waaye foofu dinañ fa taxaw tuuti leeral nga xam ne yonent bi wuyuwut àdduna waaye tey ci xeetam bari na ñi nga xam ne àdduna rek la ñuy wër kon bu wuyu ndaw soosu ko ñun fan lañu jëm kon dañuy sanku am na ñoo xam ne tey dañoo jël seen àllaaxira jaay ko ngir àdduna am na ñi nga xamante ne tey àdduna moo leen gënal àllaaxira am na ñi nga xamante ni du ñu toog ba seen xel nekk ci yàlla am na ñi nga xamante ne pour ñoom àdduna rek mooy kër waaye àllaaxira dara newu fa mbokk yi nañ leen delloo si suñu xel ndax suñu maam see Ahmad Bamba Sëriñ Tuuba xaadimu rasul da wax naan laa duniya bi uxra fata man baa nuura bi duja fa sa yendamu suñu maam Sëriñ Tuuba da doon wax naan yow mii di ndaw yow mii dama déglu laa tastari dunia bi axara yaa mu ne bul jël àdduna bul jël li nga xamante ne moom mooy allaaxiraa di ko jëndee àdduna ndax àdduna jaru ko mu ne àdduna bum la gënal allaaxiraa mu ne waaye bul jël li nga xamante ne moom mooy leer di ko jëndee lëndëm ndax jaru ko kon foofu lu suñu maam bëgg a wax mooy lëndëm moom mooy àdduna ndax àdduna lépp lëndëm la waaye li nga xam ne moom mooy leer moom mooy allaaxira moo tax mu wax macha allah wax ju am solo jooju kon mbokk jullit ñi loolu nañ leen ci bàyyi xel ñi xam ne innamal i'malu annamal xayaatu dunia laibun wa lahwun wa ziinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fil amwaali wal awlaadi ñu xam ne dund àdduna bi du dara ndax yàlla nee na nekk lu dul fo caaxaan ak bànneex maa la ëpp alal maa la dàq maa la gën a taaru waaye maa la ëpp ay doom loolu rek moo am ci àdduna mbokk jullit ñi kon ci àdduna bi lañ mën a liggéeyal suñu àllaaxira ndax ñu mën a sigg ci kanamu borom bi allahu subhanahu wa taala kon mbokk yi àdduna du kër am na ñoo xam ne musuñu toog sax ba sujjootal yàlla seen suñ borom dañ naan julli amut am na ñoo xamante ne nii duñ toog ba jël seen course julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne yàlla nee na ku julli ci moom benn ma julli ci yow fukk ah, am na ñi nga xamante ne mbokk jullit ñi boo leen waxee dee am na sax ñu ne la dee amut ndax lan ndax dañoo topp seen bànneexu bakkan topp iblis lu xumb lu nekk ñu ngi ci topp ci li nga xamante ne ni yàlla suñu borom gërëmu ko kon sallallahu alayhi wa sallam bu wuyu woon àdduna kon ñun fan lañ jëm bu wuyu woon soosu kon ñun fan lañ jëm kon nañ leen defaraat suñu bopp xam ne àdduna jarul dara àdduna lan la dangay toog ñu ne la diw dee na kër gi moo ko moom aka taaru waaye danga ciy génn par la force yaa ko waaye kër gi dañ la ciy génne kër gi bu meloon ni pale yaa ko moom yaa ko tabax waaye dañ la ciy génne bu feebaree sonn lu ñuy dégg wàcce leen ko lal bi lal bi bu meloon ni urus yaa ko moom waaye wàccee ko lal bi ngeen di dégg bu génnee àdduna lan nga ni dégg nañ leen ko jël dem jébbal ko borom bi allahu subhanahu wa taala fan lañ lay dugal ci suuf fu ñàkk solo sax yi ñoo lay mujj kon mbokk yi loolu dara jaru ko moo tax yàlla mu ne mën bëgg naa ñi nga xam ne buñ may ñaan dañ naan ma rabbanaa yow yàlla aatinaa fi dunya xasanatan wa ma lahu fil axirati min xalaax yàlla mu ne man am na ñoo xam ne dañ may ñaan àdduna waaye duñ ma ñaan allaaxira yàlla mu ne ku ma ñaan nag ci àdduna dinaa la may àdduna ba nga doyal waaye nag wa maa lahu fil axirati min xalaax xamal ne allaaxira moom amoo fa cër moom waaye nag man ñi ma bëgg man yàlla mooy ñi naan ma rabbanaa yow yàlla aatinaa nag ñu may fi duniyaa ci àdduna xasanatan yiw wa fil axirati ak allaaxira xasanatan yiw waaye waqinaa adaaba naar nga musal ñu ci mbugalu safara kon jullit loolu mooy ñaanam jullit loolu la war a ñaan ñaan yàlla musal ko ci àllaaxira waaye lan ñaan yàlla yiw ci àdduna waaye ñaan ko tamit ci àllaaxira ndax àdduna mbokku jullit ñi du kër kon sallallahu alayhi wa sallam wuyuwu ko waaye am na ñi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi di sellal lool yàlla lool waaye bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko boo leen sa xeet àdduna rek lañuy gëm ba sàgganee li nga xam ne moom mooy àllaaxira yonent bi ne ko waaye ki nga xam ne dama dugg si biir jumaa ji rek di baytil muqaddas mu ñëw rek songu ma fóon ma kottu ma kooku kan la jibril na ko kooku mooy diine lislaam kooku mooy diine bi yàlla reconnaître ndax yàlla moo ne ko woon war a diitu la kumul islaama diinan kañ la ko ko yàlla wax ci jouru taxawaayu arafaat yàlla na ko diine bi ma gërëm tànn ko mu gënal ma ma jël ko jox ko yonent bi gën ci yonent yi loolu mooy diine lislaam mbokk jullit ñi kon diine lislaam moo ñëw kottu yonent bi diine lislaam moo foon yonent bi waaye diine lislaam moom moo ko teeru ci fi nga xam ne foofu mooy baytil muqaddas macha allahu taala kon mbokk yi ba ñu paree yonent bi ba mu duggee ci jumaa ji dafa fekk yonent yépp toog di ko teeru macha allah ñépp toog di teeru sallallahu alayhi wa sallam kon mu ñëw daal dajale li nga xam ne ñoom ñooy yonent yi mu daal di leen jullee jiite leen li nga xamante ne moom mooy ñaari rakk waaye sallallahu alayhi wa sallam bam leen jiitee ñaari rakk kon foofu lañ ko tuddee wa imaamil mursalin kon moom mooy imaamu yonent yi macha allahu taala ndax dafa fekk yonent yépp toog di ko teeru te pourtant moom mooy yonent bu ñëw ci mujjum jamono de moom mooy yonent bi ñëw ci mujjum jamono waaye moom moo leen jiite fekk ñépp toog di ko xaar kon mbokk yi kii moo gën ñëpp kii moo tax ñëpp kii moo tax yàlla suñu borom bind ñëpp ci àdduna ndax nee naa leen yonent bi nee na ana xiyaarun min xiyaarin man tànneef laa ci biir tànneef kon ba loolu amee mbokki julli ni jiital na leen ñaari ràkka ba ñu paree jibril alayhi salaatu salaam indil yonent bi ay kaas ne ko xaaral ma teral la balaa ñoo yëg ci kaw mu daal di koy indil kaasu lem kaasu soow kaasu ndox kaasu sàngara sallallahu alayhi wa sallam daal di tànn kaasu soow bi daal di naan ba mu des tuuti mu daal di teg ndax moom dafa bëggoon weex yonent bi dafa bëggoon lu weex macha allah ba mu tànnee kaasu soow bi naan jibril ne ko gis nga boo jëloon ndox mi mu ne ko ah mu ne ko sa xeet ñëpp dañuy lab ci bànneex ñëpp dañuy lab ci bànneex waaye heureusement ba jëloo ndox mi mu ne ko gis nga boo jëloon sàngara si mu ne ko ah mu ne ko sa xeet ñëpp dañuy beew kon heureusement ba jëloo ko ndax mbokk jullit ñi beew baaxut waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril ko waaye kaasu kii soow bii nga naan boo jeexaloon yëpp sa xeet ñëpp àjjana la ñuy dugg waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem bay jëlaat pour eggali li nga xam ne mooy soow bi jibril na ko hay haata hay haata passé na c'est trop jeex na ndax boobu yàlla programme na lu muy programme moom mi nga xam ne lay laysa kamislihi shay'un te yaakaar naa ne lëm bind wow na te nee naa leen big ba damm na kon yàllaa ko dogaloon ndax yonent bi bu jeexaloon soow bi kon xeetam mi yëpp àjjana la ñuy macha allah mu war a yéeg ci boromam ñu tegal ko li nga xam ne moom mooy ascenseur bi macha allah ci la war a yéeg pour wuy ji yàlla suñu borom waaye moom mi nga xam ne moom mooy yonent bi ànd ak jibril mu daal di yéeg asamaanu benneel kon ñu ngi ci ràññaan bi mbokk jullit ñi waaye kan la fa fekk yonent yàlla aadama alayhi salaatu wasalaam ki nga xam ne moom mooy bàyyi mbindeef yépp waaye yonent bi mu ne ba ma fa fekkee aadama ma nuyu ko mu fay ma ñu saafu wante mu ne waaye damaa gis lu ma jaaxal damaa gis yonent yàlla aadama bu xoolee côté càmmoñ dafay jooy waaye bu xotee bu xoolee côté ndeyjoor dafay ree mu ne jibril lan moo waral loolu jibril na ko xam nga aadama mooy bàyyi ñépp mu ne ko boo gisee mu xool côté càmmoñ jooy ndax dafa am ci ay njabootam mooy ñun ñii ñoo xamante ne dañoo sàggane woon yàlla suñu borom ñi nga xam ne dañoo caaxaane woon yàlla suñu borom nekk ci àdduna topp seen bànneexu bakkan te yàlla lii la leen fayee muy jahannama macha allah kon seen fay moo nekk nii te neexul nag gis say doom yàlla di leen mbugal ci biir jahannama kon loolu moo jooyloo aadama mu ne ko lan moo tax mu xool ko te ndey jooy mu ne ko ndax dafa am ci ay njabootam mooy ñun ñi ñi nga xamante ne dañoo jëloon seen ndaw jël seen bànneexu bakkan jël seen lépp jox ko yàlla suñu borom ba yàlla fayal leen li nga xam ne moom mooy aljanna kon macha allah moo waral aadama di jooy moo waral aadama di ree kon loolu bokkoon na ci li nga xam ne yonent bi gisoon na ko ci reñaan bi waaye tamit ba mu demee foofu mu daal di fay jóge asamaanu benneel dem asamaanu ñaareel yonent yàlla isa alayhi salaatu wasalaam moom moo fa teeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mu ne ma nuyu ko saafuwanteeg moom ndax Isa ak Yaxya la fa fekk ci asamaanu ñaareel ma ñaanal ko daal di dem jàll ci asamaanu ñetteel waaye yonent bi mu ne ba ma demee ci asamaanu ñetteel mu ne yonent yàlla yuusufa alayhi salaatu wasalaam laa fa fekk waaye mu nekk nit ku taaru mu nekk nit ku yàlla may taar ak leer yonent bi mu ne leeru yonent yàlla yuusufa dafa mel ne ni weer bi gën a leeree biddiw yi mu ne nun la rafetaay yuusufa mel alayhi salaatu wasalaam mu ne weer bi nu mu gën a leere biddiw mu ne nun la yuusufa leeree ak taar bi ndax kenn werantewut yonent yàlla yuusufa dafa amoon taar moom mi nga xam ne ba ko jigéen ñi gisee jaawale pom bi ak seen loxo di dagg seen loxo yi ba muy dereetal moo tax alquran mu ne fa lamma raaynahu akbarnahu wa qataana aydiyahunna wa qulna xaasha lillahi ma haza basharan in haza illa malakun karim macha allah moom yonent yàlla yuusufa jigéen ñi bañ ko gisee ñu ne kii moo taaru allahu akbar ñun mësuñoo gis ku mel nii ñu ne kii du nit ñu ne déedéet nit la de waaye kii malaaka la ñu ne yemul rekk ci malaaka waaye malaaka bi gën a mag ci malaaka la ndax taar bi nekk ci yonent yàlla yuusufa dama ko bëgg loolu nag macha allah moo tax yonent bi bañ na ko kan moo gën ci nit ñi mu ne yuusufa ñu ne ko ku ci topp mu ne yuusufa ñu ne ko ku ci toppaat mu ne yuusufa ñu ne ko ndax lan mu ne nabiyun ibnu nabiyin ibnu nabiyin mu ne yonent yàlla yuusufa yonent la baayam di yonent maamam di yonent kon macha allah nit ku nekk ak li la yàlla may ndax yonent yàlla yuusufa yonent la ki nga xam ne baayam di isxaqa yonent ki nga xam ne baayam di yaquba yonent la yanquba baayam di isxaqa yonent la waaye isxaqa baayam di yonent yàlla ibrahim moom tamit yonent la macha allah kon yonent bi wax nañu ni nga xamante ne gis na ko yonent yàlla yusufa yonent yàlla yusufa teral ko mu ne ma daat fay jàll dem asamaanu ñeenteel mu ne ba ma demee asamaanu ñeenteel yonent yàlla idrisa laa fa fekk alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne moom la yàlla naan wa rafaanaahu makaanan aliyan man maa ko yëkkati jox ko place bu kawe ndax yonent yàlla Idrissa moom rek lañ koor ñu ne pour l'instant moom rek moo nekk fi nga xam ne moom mooy biir àjjana moom yonent yàlla Idrissa moom rek lañ ne moom rek mooy ki nga xam ne moom moo nekk aljanna macha allah moo tax yàlla mu ne ko wa rafaanaahu makaanan aliyan yonent bi mu ne ma ñaanal ko saafuwante ak moom dem asamaanu juróomeel ma fekk ki nga xam ne moom mooy haaruna ba ma fa fekkee haaruna ma nuyu wanteeg moom saafu wanteeg moom ma dem asamaanu juróom benn ma fekk fa Moussa alayhi salaam mu ne ma fa fekkee Moussa ma nuyu ko mu nuyu ma ma saafu wanteeg moom ma daal dem asamaanu juróom ñaar ma fekk fa ki nga xam ne moom mooy yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wa salaam yonent bi mu ne waaye ni ma fa fekkee yonent yàlla Ibrahima mu ngi toog weeru toog di jàngal ay xale ñuy jàng li nga xam ne moom mooy alquran. waaye ba mu laajee jibril xale yi ñooy ñan jibril ne ko mooy ci sa xeet ñi nga xam ñi nga xam ne dañuy am njaboot seen njaboot génn àdduna te amaguñ bàkkaar mooy boo amee doom dangay gis ñu ne diw am na doom waaye dellu na wala xale bi mesure gut waaye yàlla jël na ko kon ñooñu yàlla da leen di jël boole léegi yonente yàlla ibrahim mu leen di jàngal li nga xam ne moom mooy alquranul karim moo tax yéen ñi nga xam ne yàlla may na leen ay doom ñu nekk xale génn àdduna xam leen ni ñu ngi ci yonent yàlla Ibrahim mu leen di jàngal alquranul karim te yéen waajur yi bu ngeen génnee àdduna ñu ne xale yooyu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di teeru macha allah kon loolu yiw la loolu mbaax la kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la fa fekkee yonent yàlla Ibrahim waaye war fan la ko fekk mooy fil baytil maamuur boo demee ci suuratu tuuri fi yàlla naan fil baytil maamuur foofu la fekk yonent yàlla Ibrahim alayhi salaatu wa salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ba ma fa jógee ma gis fa ay kéemtaan malaaka yépp teeru ma malaaka yépp bégal ma macha allah ma jóge fa ànd ak jibril dem ba fi nga xam ne foofu mooy fii sidratil muntaha mooy fi yàlla naan indaha jannatul mawa ba ma demee ba foofu jibril na ma yow yonent bi nag fii laa mën a yem ba ma nekkee malaaka ba tey yàlla bind ma ba tey musumaa dépassé fii fii rek laa mës a yem yónnente bi ne ko kon man nu may def yow yaa ma jëlee ci suuf indi ma ci kaw asamaan wan ma lépp ñi ñëw ba fii nga ne kon fii nga yem man kon nan laay def macha allah jibril na ko aw ma droit ma dépassé place bi ndax ñun ndigal rek la ñuy xaar fu yónnente bi di waxee jibril jibril daal di jékki seey daal di dem yónnente bi gisatu ko yónnente bi tiit na ndax xamatul foofu waaye xamul fan la jëm ndax gisatul jibril waaye yàlla ak mbaaxam yàlla ak bëri yërmandeem yàlla suñu borom daal di jël baatu saxaaba yi nga xam ne yonent bi miinoon na seeni baat Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Aliyun Seydina Ousmane yàlla jox leen baatu yonent bi yonent bi di dégg seen baat ñoom ñuy waxtaan ci biir waaye ba ñuy waxtaan ci biir rek yonent bi ne daa mel ni ñuy sama gaay lañ de rek daal di avancé daal di dem waaye ba mu demee mu dem seeti borom bi allahu subhanahu wa taala waaye mu xam ne yàlla kenn du ne ko salaamu aleyka ndax jàmm ci yàlla la ëppee mbokk jullit ñi waaye lan la nuyoo yàlla mu ne ko attaxiyaatu lillaahi azaakiyaatu lillaahi attayibaatu assalawaatu lillaahi yonent bi ne baatu teey yi baatu sell yi yu neexi yi kenn rek moo ko moom muy borom bi allahu subhanahu wa taala nuyu yàlla yàlla na ko Mouhamed na nga def mbaa yaa si jàmm mbaa sonno naka voyage bi yàlla na ko assalaamu alayka ayyuhal nabiyu wa wa barakaatuhu yàlla na ko yàlla jàmm nekk ci yow yow yonent yàlla bi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yow ak yërmande yàlla ak barke yàlla malaaka assalaamu alayna ak ñu nit wa ala ali ibadillahi as-salihin ak mbooleem jaamu yàlla yi nekk ci kaw suuf iblis ne amin mu ne assaalihin mooy ñi sellal kon ba laa yi ne assaalihin kon iblis bokkatu ci mbokk julli ñi yàlla suñu borom wax ak yonent bi lan wax ak moom ndax sama émission yi la passé ne woon naa leen julli rek mooy li nga xam ne ba ko yàlla nammee ci jaamam dafa yéegal yonant bi sallallahu alayhi wa sallam pour jox ko julli moo tax yàlla mu ne fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa mu ne yonent bi boo xamante ne dafa jéggi dayoo yonent bi dafa jege yàlla yàlla mu ne maa kazzaba fuaadu maa raa afa tumaarunahu ala maa yara mu ne waaye muhammad lum ne gis na ko ah dëgg la de ndax muhammad du waxantu wa maa yantiqu anil hawa du waxantu in huwa illa waxyun yuuxaa lu mu wax rek man yàlla man maa ko ko wax loo kon yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa lu xolam ne gis na ko gis na ko kon yàlla du bët moo koy gis mais xol moo koy gis ndax tey bu nit tegoon portable am man Fatima ma ñëw jël ko yóbbu ko ma dem ba ci yàgg sama xel dalut ma bàyyi ba mu dem ma jëlaat portable bi ñëw delloo ko palaasam kan laa gis ba delloo ko yàlla laa gis kon sama bët gisu ko mais sama xol gis na yàlla ba ma jëlaat portable bi delloowaat ko palaasam moo tax yàlla dëggal na ni yonente bi gis na ko moo tax mu ne maa ba fu a duumaara a lu xolam ne gis na ko wallaahi gis na ko kon mbokku jullit ñi yàlla tagg na yonent bi ca rañaan ba mu ne fa aw awxaa ilaa abdihi ma awxaa waaye ma wax yu sama waa waaja la ma ko wax yu waaye lam ko wax ñun lu ñu si leer daal xam nañ ne julli moom ci la bokkoon julli bokkoon na ci lu yàlla wax yu yonent bi waaye leneen li nag ñoom ñaar la ak seeni secret macha allah waaye yàlla mu ngi tagg yonent bi mu ne ma zaxal basharu wa ma taa sama waaji moo teey sama waa ji moo baax ndax yonent bi dañul kumpa yàlla mu ne ba mu ñëwee man yàlla fa ma ne yonent bi dañul kumpa di xool lu nekk ca palaas ba di xool lu nekk ca néeg ba da ngay gis ñoo xam ne dañuy dugg ci néeg borom néeg ba génn dinañ daaw ba dugg ca rondal ba yendu di xool loo xam ne kenn xoolewul leen ko ndax dañ kumpa waaye yàlla nee na yonent bi dañul kumpa de bëtam ya rafet yooyu fa ma ko xool loo rek la xool siggiwut sax ndax kersa gi nekk ci moom mu ne maa zaxal wa maa taxa mu ne waaye nag ca rañaan boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad raa min ayatil kubra waaye gis na fa ay kéemtaan yu jéggi dayo macha allah kon rañaan boobu ci la koy yàlla suñu borom jox ko cinquante julli yonent yàlla Moussa di ko ko wàññil ba mu des cinq waxtu macha allah kon julli moom la jëli woon muy sërica bi mu jëli woon ci yàlla waaye yàlla defal ko lu mu defalul kenn kañ la ko rañaanal mooy ci weer bi ñu nekk kon weer bi weer yiw la moo tax alquran ñëw dëggal ko mu ne subhaana lazi asra bi abdihi laylan min al masjidil aqsa min al masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi asra ilal masjidil aqsa allazi barakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiu alim yàlla dëggal na rañaan bi nga xam ne rañaanal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma jëlee ko fi nga xam ne mooy makka indi ko fi nga xam ne mooy palestine ci guddu waay bi nga xam ne man na 1200 kilomètres yàlla mu ne ma def ko ci benn guddi indil ko ci man borom bi allahu subhanahu wa taala waaye wan ko ay kéemtaan yu bëree bëri ndax man yàlla maa ngi dégg te maa ngi gis kon mbokk yi loolu moo nekkoon rañaanu yonent bi sallallahu alayhi wa salaam waaye rañaan ba bëri na lu bëree bëree bëri li fa yonent bi gis waaye temps bi ci boppam moom moo ngi nag mbokk jullit ñi mais bisan ci bis yi allah xam naa dinañ ko gën a leeral mbokk jullit ñi kon lépp lu ci jub ci yàlla la waaye lépp lu ci dëng ci man mii la kon ila maratil uxra wa axiru naa an alhamdulillahi rabbil alamin waaye di nuyu nag maa ngi nuyu franco arabe Ousmane Ibn Affan amical maa ngi nuyu waa amical bi yëpp macha allah des anciens élèves bu Ousmane Ibn Affan ziyaar naa leen di ci jiital Raïs Seydou Ba ak Mouhamed Ba sama soppi la macha allah kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan ثقيلتان في الميزان